رفعنا mbokki taalibe yi abonné leen gaaw ngir ngeen ñu mën a jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fii ci Assaliha TV da ngay bës fii ñu bind s'abonné ba noppee nga teg ci kolos bi. Assaliha TV une chaîne religieuse et culturelle au cœur du mouridisme. xaaxal yëpp ngi ci biir ak yeneen yi xam ne xel du ko daj ci xéewal kon nag sant leen yàlla bu baax leen yàlla bu baax a baax amiin amiin te nan góorgóorlu bu baax baax baax nan góorgóorlu bu mu gis dara sëñ bi rek waaw gisul ndax gisul dara lu borom dëgg la sëñ bi gisul dara lu borom gisul dara lu yonent bi mu ko tegtal waaw kon nag bu ñu gis dara lu sëñ bi waaw bu ñu gis dara lu sëñ bi bu ñu ci kenn mag du ko jëkk du ko mujj dëgg la bu ñu ci kenn mag waaw ndax sëñ bi def na lépp di dikk ab taw kaas bi moom kaas bi moom gis ngeen ni mu toll waaye taw bi yëpp boo yoree ab pot yaa yor pot la nga dikk daal yaa xam waaye yàlla moom mi ngi taw allukaan da cay taw li taw ci kaw géej gi kon xam nga kooku bare leen waaye ni ngay taateen la nga leen yal na yàlla jubali nu taatan taatan bu yaatoo yaatoo yaatoo waaw waaw duggaat ci biir kàttanu sëñ Tuubaa gi te bañ koo génne yàlla nañ dale ci moom yàlla nañ dale ci moom yem ci moom ndax la ko jëkk ci noonu ci noonu la génn fii na murit boo gis lu ko dal mooy lam bàyyiwut boppam ak sëñ Tuubaa fa ko problème di tàmbali di waaye loolu bàyyeeg sëñ Tuubaa loola defal murit bu ne nun ñii mu fi bàyyi lu yàqu ci suñu biir mooy boole ci ku ci bokkut bi mu ñëwee da doon tànn mu ñoom fi bàyyi ñu ne da leen fi bëri ci nit yi ci nit yi ci nit yi ordinaire boo baree xaalis nu fat la boo amee pouvoir nu fat la boo mënee wax nu fat la yooyu yëpp nag gàllankoor la ci noonu waxkat bi bala laa bàyyi ne la sa baay gënu la borom alal ji lu mu am jox la te fekk ak yëkkóor la def boo xam ne balaa man ñetti fan mu ñëw ne la wax ci jàng tubaab nag lu mu gis muy mbooloo moom pour moom projet bu ñu war a organiser ñu ne la defal fondation fondation bi ñu tëralal la ko noo xam ne doo mën lu dul bàyyi koog ñoom ñoo koy jariñoo yow nga ni kutube te fekk yàlla defal na la loo xam ne man nga caa bañ bi yàlla defal gënoo juddu fekk ko gënuñu nit yi te dañuy ñàkk di nu jox gënuñu nit yi te dañuy ñëw di nu liggéeyal ku ci faatu ñu siyaare fañ la suul xaalis bi ko génn bu toll ne bañ la doon jox lii nag ku ko am war nga koo xam te kenn du mënu koo xañ te kenn du ne maa la ko jox sëñ bi lii nag bu jënt du lépp du dara dafa am kon nag ñàkk fayda ko war a andi ah, lu ko war a andi fàtte suñu bopp yi lu ko war a ah, nan xam leenu yàlla defal xam ne la yàlla defal nag bokkut ak bew bokkut ak yabaate bokkut ak tooñ tooñ moom ku koy def doo mucc sëñ Tuubaa dane du ma leen ne bu leen tooñ dama ne bu leen fayu sëñ Tuubaa dane bu leen fayu ku dul dana tooñ waaye nag nan xam sëñ Tuubaa nag feneen it nañ xam ne leen yàlla def foofu la wax bi nekk bun bun bëgg dara lu dul li nu yàlla def asalaamaaleykum mbokki julit yi yéen ñi nga xam ne yéen a ma doon laaj sëriñ Malick di yëngu lépp lu jëm ci wàllu ñaan yàlla ah sëriñ Malick mi doon xaar yegg si na nag bépp jàngoro boo xam ni mi ngi gaar doomu aadama ba mu tee koo faj ay soxlaam moo xam jàngoro biir la ak jàngoro biti sëriñ Malick yegg si na sëriñ Malick day def listixaar waaw waaw listixaar bu leer nañ ñi sax maa la ko wax de. da nga bëgg xam projet bi nga dugg soxna si ngay takk sa yoon wi nga jàpp wala liggéey bi ngay bëgg a def ngeen ànd ci ak sëriñ Malick lépp lu jëm ci bayre muslaay bépp soxna bu taxaw ci wàllu am borom kër jokkool ak sëriñ Malick gàllaaju oto yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg gàllaaju oto mate na ko de képp kuy dugg ci luy dem ak a dikk war nga am gàllaaj war nga am muslaay sëriñ Malick mi ngi cee gàllaaju oto gu doy waar waaw waaw de ak képp ku bëgg kiis te sax des na de sëriñ Malick sax amaale na gàllaaju kër sëriñ Malick sax dalay defaraaleel gàllaaju kër sëriñ Malick dalay defaraaleel gàllaaju kër képp ku bëgg jëkkër képp koo xam ne da nga bëgg kiis sam xel dafa naqari mënoo jàng dara mënoo jàpp dara wala mënoo mokkal dara dawal seeti sëriñ Malick ak lépp luy kaaraange bayre wala yëngu-yëngu jamono wala lépp luy dugg ca bëgg ci kaaraange dawal léegi nga seeti sëriñ Malick ma nga fële ca géejawaay ngeen mën a jokkoo ak moom ci 76 593 73 51 76 593 73 51 nga jokkoo ak Serigne Malick mbokk yi su ngeen bëggee digg digg dal di jàmbatati jàngoro wala feebar bu la sonal wala sax ay gàllankoor loolu jeex na fi ak Serigne Malick.